liggéey bi nag lu ko waral mooy euh, ambassadeur ci boppam moo lu ne agence bi am na dynamique bu bees am na liggéey boo xam ne moom rafetu la liggéey bi moom moo jël téléphone am woote nee na dafa bëgg jàpp si mbir mi nan la mën a defee pour jàpp si mbir mi ñu toog waxtaan bu ñu waxtaanee nag euh, ñu xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu parce que ñoom ñooy jàppale ñoom ñooy jàppale seen jëkkër yi ci dépense yi xam nañ ko ci lu bëri si lu bëri bu xafee ba mbir mi xaw a doy waar ñoom ñooy génn dem lijjanti ko donc ñooñu ku leen jàppale njaboot ci nga jàppale donc loolu moo tax ñu xool te ñu ñu seet ne Dakar dafa am problème boo bëggee am jardin sax daanaka jardin bi ngay béy ay légumes doo am espace donc loolu moo tax ñu ñu ñu ñu xool ci école yi bu ñu seetloo ci biir école yi ñu gis nekk ci diggante classe yi ak miir yi dafa am espace waaye espace bi mbali kese la. moo tax ñu woo monsieur le maire ñu ñu ñaan ko pour ñu abal ñu école ñu abalee école bi ñu mën a liggéey ak moom ñu xool nan lañu ñu mën a soppee mbalit boobu def ko jardin boo xam ne d'abord école bi dina nooy parce que mbalit bu la wëree loo loo munta noonu di nga nooy nooy boo xam ne ngelaw ngelaw ngelaw boo xam ne sellut donc loolu day affecté euh, santé xale yi donc ñu aménager mbalit boobu ñu génnee ko def ko ay pépinière def ko ay jardin jardin yooyu nag euh, daanaka euh, jardin yi dina mën a tax ba femme parents d'élèves yi association femmes yi ñi nga xam ne seen doom yi ñoo fi jàng ñoom ñu ñuy fi ñëw di fi liggéey di fi liggéey fi liggéey ay koppar yu weex tàll tamit parce que jardin bi dina jur lu ëpp téeméeru junni téeméer ak euh, ñaari fukki junni weer bu nekk donc loolu am na solo donc jardin boobu tamit dina tax ba élèves yi tamit mën a jàng lu lu lu lu lu dem ci wàllum environnement donc loolu tamit am na solo dina tax ba parents d' euh, élèves yi ak élèves euh, yi ak parents euh, ak professeurs yi mooy jàngalekat yi ñoom tamit ñu mën a di di di di di bokk ci ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu bokk ci liggéey bi nga xam ne dina njëriñ dina njëriñ askan wi dina njëriñ commune bi day tax ba tamit commune bi tamit am pépinière boo xam ne bésu euh, jëmbatu garab bu jotee du ñu dem lamb du fenn ñuy ñëw si jardin bi am fi ay plante dem jëmbat ko ci biir kër yi surtout arbre arbre euh, garab meññee ci biir kër yi ba pare nag ci mbedd mii noonu dinañu mën a am production boo xam ne wax dëgg yàlla dinañu mën a nekk indépendant donc dafa am solo tamit euh, ñu expliquer leen nekk fii nii amoo leen benn facture bi ngeen di fay parce que panneau solaire yaa ngi nii ñoom ñooy taal machine boo xam ne moom mooy indi ndox mi gasal nañ leen ay teen defar lañ leen donc am ngeen ndox doo leen fay ndox am ngeen courant doo leen fay courant donc am ngeen grillage tamit lépp la ñuy tëj amul benn benn benn gàllankoor bu ci nekk de ce fait que amoo leen alibi pour pour pour pour production bi mu bañ a baax. production bi nag euh, man laajuma sax moo am production juste continue déedéet na ngeen bokk ci les premiers na ngeen bokk ci les premiers parce que yeneen écoles yi tamit dina ñu continuer euh, di leen di leen di jàppale bu ñu leen jàppale nag ku ci am ndam rek xam ne dinañu gën a góorgóorlu di la di la jàppale.